jërëjëf kon ñu wéy ak yéen ci entretien bu seen actu troisième partie ñu am mbégte di dalal toujours honorable député Mously Diakhaté euh, bokk si Benno Bokk Yaakaar euh, nekk également euh, actrice de développement yaa ngi woon ci mbiru ministère yi ministre yu bëri fal nañ leen mais nit ñi impression bi ñu am mooy ministre yu bëri président bi leen fal xamu leen mu bokk ci ministre de l' agriculture nga doon wax si doxalinam ministère de l' agriculture noo jàngate parce que secteur bu am importance la noo jàngate liggéeyam ci 100 jours yi. waaw El loolu laa la doon wax léegi dama la ne fi ñu doon xaar le président Bassirou Diomaye Faye parce que euh, baykat yu bëri dañuy wax ni euh, heureusement baykat yi am nañu président bu baykat parce que moom nag du baykat bu yàgg a bàyyi bay defe naa ni chaque vacance doon na bay parce que bi muy joxee euh, déclaration de patrimoine am ci ba biir campagne bi. Euh, boole na ci ay tool yu mu am njagañaaw ak fii ci euh, roqam foofu voilà kon ñi comme nu ma ko waxee ci deuxième partie bi dañ doon dañ doon ko xaar mu organiser secteur agricole bi mais loola amul leneen li nga xamante ni doy na waar te jara diglu mooy euh, le ministre de l'agriculture moom nee na premier conseil des ministres la ko xamee ma di ko xamal ni ko kon kooku moom xamu ko woon na sénégalais yi déjà ni leen xawma ko Ousmane Sonko moo ko xam moo ko ko proposé mu def ko ministre de l'agriculture ma ni ko mais li muy def ak ak ak ak euh, kii communautaire yi mu ni mi ngi ko installé mais installé wul dara coopérative installé wul benn coopérative beneen bi ci des mooy wax dëgg mel na ni lu ko jafe moom ministre bi hmm. parce que li mu jëkk a def sorti bi ma ko jëkk a gis ay machine yoo xamante ni le président Macky Sall moo ko commandé woon mu taxaw naan gouvernement bi moo ko fi kon bu leen nee jàppale leen dina leen jàppale ngeen war koo gëm déjà lool rek day décrédibiliser l'état entier beneen bi ci des mooy magum jëm nga di ko jox ay 7 kilos ci engrais gerte gi moom ku nekk gis na ko ci réseaux sociaux yi. fépp foo jaar rek gis nga ko lii baaxul du semence bu baax yenn yi suuf lañ cay def ak i xeer je que ñoom seen campagne ren bi campagne bu ko gën a bon de deux mille à jours amul il faut Bassirou Diomaye Diakhar taxaw seetlu il est jeune il est trop réseauté. mais pourtant il est très réseauté. mais pourtant ñoom nee nañ euh, campagne bi liñ ci def ci alal ak euh, bor yi ñu fay ak engrais bi ñu wàññi ñu dañ doon jortoon ne. campagne bi moo war a gën a ci campagne yi fi mën a jaar. benn mooy mooy mooy mooy euh, campagne bi dañoo fekk ñu voté ko assemblée du ñoo ko ci def. du ñoo ko ci def. Hmm. dañoo fekk ñu voté ko assemblée budget dañ koy voté dañ koy préparé dégg ñoom. dañuy wax ba pare weddi seen bopp parce que démb maa ngi gis le premier ministre mu jàkkaarloog ak kilifa diine yi jóge woon ci waawoon war koo yëgal seen euh, ouverture inauguration grande mosquée bi mais ca biir wax ja may dégg mu di leen wax que ni moom seen budget deux mille vingt cinq lay commencé loo yooyu wax yu woroo amul sens ma del si waxaat la ci ni ci mbay mi defuñu ci dara engrais bi au niveau mondial la wàññi ko du ñoom ñoo ko wàññi du ah nu mu tuddati ba lumière ba ñëwul de hmm. lumière bi dikkul damay bañ affaire bi kon nag moom ñun comme dañuy waxtaan relax voilà hmm. Hmm. <laughs> li li li li am solo mooy du ñoom ñoo ko wàññi wàññiwuñu ko dañoo dafa wàññiku ko au mm-hmm. beneen bi ci des opérateur économique yi nga xam ni ñoo yor semence bi ak engrais bi di ko joxe mm-hmm. mais seen partenaires yi nanguwu leen leen a ubbil crédit bu doy mm-hmm. déedéet parce que doxin bi ñu doxe ak opérateurs yi baaxul ah lu tax état day wax ni opérateur bi man soxla naa nangami ton un milliard deux milliards ci engrais trois milliards ci engrais vingt milliards ci engrais ñoom ñu dem wut seen ay partenaires financier ñooñu ñoo leen di financer ñu dem jëndi ñëw jaay état bu leen état fayee ñu dem di fay banque yi mais bu fekkente ni yow da ngaa da dangay da nga ne da ngay audit te yow li ngay audit xamoo sax li ngay audit parce que li ngay audité kenn fayeeku ko sax dugg ci dox doxalin woo xamante ni partenaire financier yi seen xel dalatul mais tuuti ay tuuti crédit lañ leen lañ leen ubbil déjà amuñu xaalis mm-hmm. beneen bi ci des mooy fekkoo fi xaalis nga ni ba may mm. dellu ginnaaw mm. ba pare nga ni fay nga quarante milliards mais foo jële xaar quarante milliards yi nga fay ah, question fan la jógee il faut ñu arrêter di nax nit ñi may féliciter le ministre des sports. waaw ministre des sports bi euh, muy ndaw soosu. jigéen la nag. Euh, moom lu tax nga koy féliciter d'autant plus que ŋàññ yi bëri na ci moom temps yi ndax <laughs> moo yoraale secteur culture bi également. naa nga man jigéen ñi moom dama leen di beral loxo. Mhm. waaw man koy maa koy féliciter di ko encourager defe naa moo yor sport ak ak ak. culture waaw mais mais finale coupe du Sénégal bi mu bàyyi quand même dem. di fekke ji euh, benn événement boo xam ne ay France ci ambassade de France ñu bëri ñaawlu nañ ko quand même yow nga koy félicité. waa dama koy félicité parce que dañ ko namee jox ko ñaari post ministère yu am solo. Hmm. muy sport ak culture. Hmm. Euh, sport li ma ci xam bari hmm. mais ku nekk xam na ni man nitu culture laa. ndax nitu démb laa. te dama bëgg sama aada sama cosaan. culture. du fo rek ak fecc du woy rek ak tëgg mais nit ku nekk dangay jaay sa askan ci sa culture loolu dafa am solo ma di ko encouragé ni ko góor góorgóorlu ndax li ma dégg bërki démb ma coupe du Sénégal président de la république sax moo ko waroon a ubbi ji moom la ñu waxoon d'ailleurs bu mënula dem mu yebal premier ministre am moom ba mu demee am na yeneen technicien ana directeur cabinet ana chef de cabinet ana ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne mën nañ ko représenter au niveau des ambassades de France alors ka nga bàyyi leen fa parce que da demoon ci benn cocktail ca français ya foofu dama lay wax ni la ah. el il faut ñoom ñu dellusiwaat soit ñu wax ni parce que ñoom ñoo waxoon ni France dégage hmm. léegi dañuy wax ni France na resté mais l'idée wu France dégage ci boppam moom mooy dégagé idée bi hmm. il faut ñu xamal réew mi ni idée bi dégagé wu na ah. parce que mënuloo yëngal réew mi ci logo boo gis français moom ko parce que logo yi rek la français yi moom ci réew mi mais li ci biir di di liggéey sénégalais yi ñoo ko moom say mbokki africain ñoo ko moom nga yàq alal jafa ne parce que logo bi français la que France dégage Total dégage Auchan dégage lakk matérielu jàmbur yi nga xam ne ay sénégalais fa nekkoon di liggéey ay doomu sénégalais fa nekkoon di liggéey alors que tey nga nga nga nekk ministre des sports du Sénégal ñëw xale yi nga nekk seen fierté jigéen ñi am kontante seen la nga toog fees fi nga war a fi nga nga war a nekk nga bàyyi leen fa dem di wuy ay cocktail c'est honteux c'est pas bien beneen bi nga xam ne gis naa ko sama bëtama may mm. ñoo seen xale yooyu leen di saagaal mu naa leen ndax ndax maanaam liñ leen di neexale ñëw na ñu ni waa mu ni na riir a riir a riir <laughs> jigéen ñi xaaruñu leen foofu ñooy yaay ñu ñi ñoo ñàkk suñuy doom mm-hmm. xaaruñu ñu foofu ndax ñoo war a defar société bi koy defar société ci jigéen ngay jaar mais est-ce xam nga ne ku bëgg yàq société ci góor jigéen ngay jaar aussi lu am ma am solo laa lay wax ni surtout yonent bi bi ñu ko bëggee faagaagal ci jigéen ci soxnaam lañ ko jaar el ma àq hmm. démb la woon suñu tam xarit hmm. muy bis bu naqari mais di bis bu neex ndax mooy suñu ndoorte at waaye aussi ci lañu rey sëtu yonent bi te ci jigéen lañu jaar kon jigéen ñi fokk ñu def attention mais ci jigéen ñooñu bokk na ci également le ministre de la femme ministère boobu yow euh, yàgg nga di ci wax ndax coppite yi ci am am na ku fa nekkoon ci nguur gële daan nga ko ñaax ci lu bëri mais ministère de la femme bu bees bii daa mel ni euh, vi amagul visibilité daal ci jigéen ñi. may Jéy Maymuna nag dama ko xam. Hmm. c'est ma sœur. félicitations. Hmm. Hmm. Maymuna. dafa euh, yor ministère bu bu bu bu bu bu bu am solo. boo xam ne moo yor famille yor njaboot xam nga man ministère ministre ministre ministère la famille day ministère boo xamante ni damay liggéey ak moom. ginnaaw bi may liggéey ak ministre économie et du plan parce que man damay liggéey si mortalité maternelle néonatale et infanto-juvénile kon damay liggéey ak ministre de la santé mais damay liggéey ak ministre de la femme parce que dañu war a fexe code de la famille bi dëppoo ak loi yi nga xamante ni dañu ko voté ci biir réew parce que mënuloo euh, euh, rectifier Euh, nu mu tuddati les lois yi yi permettre sénégalais bu jigéen bi war a sëy ci dix huit ans alors que suñu loi wu réew mi seize ans lañ ci def dañu war a fexe ba mu méngoo dañuy liggéey ci jigéen ñi nga xamante ni dañu leen di xarfal parce que xale bu ndaw nga xarfal ko may ko jëkkër te ay atam matu mu ëmb ci jël ca fistule obstétricale nga xam ni Sénégal day enregistré quatre cent nouveaux cas ci fistule obstétricale te loolu dafa bokk ci liggéeyu ministère bi a Dièye yor te man damay dégg gis ni saa yu leen yeneen ministre de la famille ñu defee ni joxe machine a war a des ñu hmm. defee ni nuróole ay mbubba war a des ak ñu defee ni as financement as financement mais moom ci boppam li mu jëkk a def moom ak premier ministre alors que bi ñu ko euh, xale Euh, région la jëkk a dem côté boobu financé leen jox leen ay machine yeneen côté yi ñoo ngi toog di ko déglu xëy na ñëwagu ca mais am na beneen liggéey bu mu war a def aux direction de la famille yu ëpp maanaa parce que bi ñuy wax autonomisation des femmes et des jeunes fii depuis à Stockholm 2014 à nos jours évaluer wuñ ko pourquoi jigéen ñi amuñu autonomisation des des des des des des finances autonome ñu autonome ñu ci seen financement pour pourquoi jigéen ñi ba tey demuñu loolu dañ ko war a évaluer xam lan la ñoo ngi koy xaar ci bu ñu ñu indil tëggu ak fecc mois de mars parce que yooyu c'est dépassé c'est révolu jigéen ñi ñu ngi xaar ci violence yi leen di def ci biir sëy xale yi ñu ngi xool ñi xool xaar ci taxawaalu bi xale yi nekk ci mbedd yi. waaw loolu bëri na trop surtout Dakar xale yi ak étranger yi fi nekk di yelwaan mbeddu Dakar yi quand même kenn xàmmeetu ko. yu mu war a tâche mu war a def bari na kon nañu bàyyi bu ñu nee ministre de la famille rek ñu dee ni tëggu feccu as financement ay machine machine diggante machine u vol hmm. machine u soq ak machine u bojj machine u xolli ak forage mu indi ndox meeg lamp lampadaire yi ci àll bi li ci président Macky sàll def ñoom entretien bi dong buñ ko defee di jàmbaar kon may c'est ma sœur te moom bu ma ko ne c'est war naa koo gëm parce que keroog bi muy dem ci madame euh, euh, Marème fay sàll moom ak ñi mu àndaloon man mii maa wut audience ba maa leen yóbbu. ah lu mu fa doon wut. bon la mu fa doon wut nag amul solo li am solo daal. mooy maa leen yóbbu sama sœur la mbaa mbaa daa bëggoon fekk gars yi <laughs> ah déet musli foofu information nga fi joxe. non non non non loolu loolu information la sax c'était juste pour wan la ni rek xam naa Maymuna bu yàgg te li ma lay wax nii. lu leer la saxara iyaan ci am am na ci seede foofu nga ci yem waaw foofu laa ci yem doy na borom xel mais également wàllu financement am na solo aussi ñu gis ne euh, soxna Aïda Mbodj di sama jigéen ma di ko nuyu au passage euh, moom moo yor DER te tàmbali na ci def liggéey bu am solo muy ci wàllu recouvrement parce que dafa ne ñu bëri tëdd nañ ci xaalisu DER bi président Macky Sall financé woon leen ñu lànk bañ a fay loolu bi nga ko déggee quand euh, war nga ko rafet lu moom Aïda xam na ne diggante financement état ak jigéen ñi xam nga Aïda moom du bula ci mbir mi. parce que ministre de la femme la woon. xam na bu baax li jigéen ñi di dund jàmbaari fàkk tëdd la joo xamante ni lu ñu ko jox mu def ca fullaam ak faydaam mais man je vois pas Aïda Mbodj sax ci foofu Aïda Mbodj am na feneen fu mu gënoon a utile parce que Aïda dafa sonn ci président Sonko ayda Sonko dafa jóg di xeex Aïda takk ndigam boot ko rogganti ko def ko yaay. ñu bëri nee nañ ministère de la famille bi moom lañ ko doon jox. mais xam nga man duma mënuma la ni ah, ah, kii sama sœur la nu mu tuddati Ah, Maymuna sama sœur la wax la li ma la wax ci moom ba moom ba muy dem ca Marème Faye Sall man maa leen yóbbu woon ñu jox ko ministère bi mu wëlbatiku ni nañ ko jox ay Mbodj mais li leer leer daal Aïda moom jàmbaari fàkk tëdd joo xamante ni ku jara euh, félicité la ku jara jox la te nit la koo xam ne nag lu mu nekk da cay dem ba jeex. voilà léegi bu weesoo loolu euh, bu weesoo aussi li ñuy wax ay ministère de prédilection mi ministère yi nga xam ne. ñoo ŋànk état bi muy intérieur yooyu nga xam ne ñoom ci beneen liggéey lañu ne duñu ay politiciens yeneen ministères yi dafa mel ni kenn xamu leen daa mel ni ñooñu existé wu. <laughs> xam naa ku ci Sonko tudd rek <clears throat> dinañ la xam parce que comme comme yoolee na bërki dem ministre de la justice. ca ca beneen yoon ba mu yoolee ministre de l' ah mbaa du ci teg ministère des forces armées. alors ah loolu mbaadu day niru ne dañoo bëgg ñu génn ay politiciens yor mbir yi. <laughs> en tout cas lii am solo tey mënuñu xam ministère yi lan la ñuy def ak kan ak kan. Mhm. ndax euh, li koy war a indi mooy euh, ñu def déclaration de politique générale définir euh, politique économie réew mi fan la jëm. Mhm. ku ci nekk ñu xam lañ la jox. Mhm. lan nga ca war a def. bu ca bu ko defee ku ci nekk man di communiquer ca pàcc ba mu nekk la mu war a def mais fi mu ne nii may wax ak yow. Hmm. ñoom xamaguñu fu ñu jëm. nit nag bu fekkee xamagoo foo jëm. amagoo orientation bu leer ci sa bopp vraiment euh, defe naa sa communication du yomb parce que li tax sa communication du yomb mooy ñoom dañu ñëw fekk fi plan Sénégal émergent ñu continuer ko moo continuer di dema ah. Hmm. soit ñu imprégné wu ci la Sénégal. Euh, le Sénégal émergent bi pour xam vraiment euh, politique bi ñu bi nga xam ne le président Macky Sall doon na ko doxal ba ni mu fi jógee ci ñu xam politique bi nga xam ni FMI ak Banque mondiale d'accord nañ ci financé ko ba sele nañu les financement ñu xam politique boobu nga xam ni le président Diomaye ak son premier ministre d'accord nañ ci continuer le plan Sénégal émergent nañu imprégné wu foofu pour communiquer ci parce que loolu mooy liy dem. Mmh. léegi ñu ñëw nag ci pétrole bi ak gaz bi nga xam ne feeñ na nga xam ne ñu bëri jàpp nañ ne aussi euh, chance la pour euh, nguur gu bees gi ndax lépp loo xam ne rëccoon nañ leen ci at yi di ñëw danañ ko war a mën a dabu ba financer projet yi gën a mag ci Sénégal pour réew mi jëm ci wàllu développement ndax yaakaar nga ci ñoom ne pétrole beeg gaz bi dina am leen mën a apporter ñoom. waaw euh, xam nga le président Macky Sall nag jàmbaari fàkk tëdd la joo xamante ni euh, li xale yi naan lépp la sele côté ko parce que dañ ko tënk ba nga xamante ni ci ay loi def ko ci euh, constitution bi yi réew mi waa réew mee ko moom xam nga bu njëkk ñun amuñu woon droit ci suñu suñu suñu alal réew mi bu njëkk amuñu woon benn droit ci suñu alal voilà alors que euh, le président Macky Sall moo ko dugal ci ci ci constitution deux mille deux mille seize bi. ba pare ñu voté ay loi yoo xamante ni xaalis bi dañuy xam fa mu jëm. Hmm. lenn li day dem ci budget li ci des dañu koy def foo xamante ni génération bi di ñëw. Hmm. vraiment bu ñu ñëwee man ko fi fekk. Hmm. ñoom dañu fekk ñu defaral la ñuy lépp. el dama lay wax ni li président Macky Sall commencé ci réew mi ñoom bu ñu ko peinturé rek di jàmbaar. vraiment bu ñu yàq dara. parce que dañu fekk réew mi tegu ci raayu développement. mais nag dafa mel ni yàq yi aussi tàmbali na. bëgg a dindi lii fi nekkoon pour ñoom indi seen gis-gis. waaw loolu du yomb xam nga président Macky bi muy door a ñëw am na. ay ay wax nañ ne yi dafa mel ni Sénégal gisu ci boppam bu baax. ci contrat yeeg yooyu. ñu war ko xoolaat. Ah, xooluñu dara. te nee nañ fow ko xool bi faw maam loolu la président bi wax. day xooluñu dara xooluñu dara. tey nag bu ñu décidé woon xool sax bu ñu dugg ci yooyu xam nga président Macky saal bi muy toog door am na ay contrat yoo xamante ni doon na ko remettre à cause Sénégal ay milliards yu bëri lañ ca ñàkk te amuñ ci benn ndam xam nga li ma wax. Hmm. am réew boo ñëwee fekk ñu tabax ko ba mu yegg bu ko toj. Hmm. soo mënta teg brique mu jëm ca kaw nga peinture soo mënta peinture ngay raxas muy set. dégg nga bu ñu fi nekk di def di ko benn benn benn contrat boo xamante ni vraiment. Sénégal gis na ci boppam parce que ñoom 10 pour sant yi ñu doon wax loolu mooy mooy ci contrat de recherche ba. nga xam ne 10 pour cent lañ cay am soo gisee baax na soo gisul yow yaay perte parce que yaa ca def sa ay milliards. yooyu ñu leen waxoon yépp vaar yi génneel na leen ni ñii dañ leen doon nax liggéey ak bavardage mënta ànd bu ñu indil seen bopp benn problème. voilà euh, soxna Mously xam naa émission bii daanaka euh, léegi mu jeex euh, ci wàllu li nga xam ne aussi mooy état bi yow boo doon tënk seen liggéey ci li nga xam ne moom nga gisagum euh, de façon globale lépp lépp lépp cent jours yi ak ci liñ dem ndax sa xel dal na ci ëllëgu Sénégal. ne déedéet sama xel mënut a dal ci ëllëgu Sénégal. Hmm. il faut ñoom ñu defaraat seen toogaay. Hmm. ni ñuy defaree seen toogaay d'abord mooy nañu respecte les institutions. Commencez par le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Hmm. Il faut xam ni mooy le président. Hmm. Assemblée, c'est l'Assemblée. Hmm. La justice. Il est le chef de l'État. Il est le garant. Si vous faites bi mu toog dañuy am problème. mënuma accepter le président de la république ne ci biir ba pare keneen di dugg ak comme mën a tool ak titre bu ñu la mën a jox ak lu ñu la bëgg bëgg a yokkal respecter sa bopp parce que boo respecté wul sa kilifa kenn du la respecté mënuñu nekk ci réew moo xam ne le président de la république day dugg di toog di xaar premier ministre am nga ni sa xel dal na mënuñu nekk ci réew moo xam ne le président de la république moo premier ministre am dañu tëju di décider ci palaasu suñu magistrat yi alors que nga ni sa xel dal na mënuloo nekk ci réew moo xam ne le président de la république moom mi nga xamante ni moom lañu ñu yaakaaroon moom moo nekk moo noon je suis je voudrais être au-dessus de la de de la lan ma mêlée mmh. mu naan woo naa as président assemblée ni ko defaral waaye ñaan naa sama premier ministre ñun xamaguñu kan mooy président de la république hmm. il faut que moom mu dëggal boppam que ni il le président de la république hmm. il est le gardien de la constitution hmm. il est le de la nation na jël ay responsabilités su ko mënul na bàyyi amuñu ci benn problème amuñu lenn luñ koy xarabe parce que Jean Zou liñ la ci mën a xam rek mooy nga définir aksi yi nga xamante ni bëgg nga fa yóbbu réew mi fii laa ko fekk fii laa ko bëgg a yóbbu. loolu amagul. te loolu amul kon sama xel mënul dal. Mhm. mais am na lu mu naroon fàtte mooy dabu alalu réew mi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne bëri nañ ñoo xam ne dañoo luubal ci alalu réew mi te faw ñu jubbanti leen teg leen ci yoon jëlee alal jooju. loolu jërul coow. dañu am ñoo xamante ni loolu mooy seen liggéey na ko bàyyeeg yoon yoon def liggéeyam cour de compte ngi fi yeneen a ngi fi yoo xam ne loolu mooy seen liggéey xam nga maa ngeeg rapport bi sama biroog yooyu amul solo. ne tribunal def liggéeyam. na yoon def liggéeyam. Mm-hmm. ñoom ñu def li ñu war a def. le Bachir le président Bachir mais li ñuy ragal aussi mooy mu nekk benn épée de Damoclès wala chasse aux sorcières làq ñi ànd ak yow parce que am na ñu ànd ak ñoom tey jii nii bokkoon nañ ci nguur gële xam nga ñu ngi wax affaire inondation yi ak assainissement bi lu ñu def ci réew mi. Hmm. mais kan moo yoroon projet bi. ki yoroon projet bi bu yàggul rek laa dégg ni euh, nommé nañ ko. xaw ma lu ko nommé ki yoroon du dëkk. mais il faut arrêter que 700 milliards la que 400 lañ ci def ak 12 pour cent mooy exécution bi mais yow kay li nga soxla lépp ki ko yoroon ki ko jiite woon di ko piloté. mi ngi ci sa biir. na ko leer. Mame mbay Niang yaa ngi ak rapport hmm. mais jox ko yoon ubbil dossier bi où est le xale yi nga xam ne dajale nga leen ca grand théâtre di leen laaj ñoom ban apport lañu pare pour indi ko ci projet bi mais ban projet projet amul yow yaa ni projet bi parewul projet le faux projet bi nga xamante ni c'est c'est c'est un faux projet bu ay xale dee nangami bakkan rot ci ay gendarme yu bëri ñàkk ci seeni loxo ay xale yu bëri ñàkk ci seeni cër ay yaay yu bëri ak i baay di jooyte noppeegul ba ñu jox la réew mi ni la ana projet bi nga ni projet bi parewul septembre lay pare dajale leen ni leen décembre lay pare mais xale yi ban contribution lañ bëggati xale yi contribué nañ seen dara ñenn ñi des nañ ci géej gi ñi ci des jaar nañ ci micro ak waa bi ña nga ca diggante Amérique ak fu xamul diggante Mexique di tumuraanke xale yi joxe nañu seen seen seen contribution xale yi saaga nañu seen kilifa diine yi xale yi respecté tunu kenn dugal nañu en ci diggante sénégalais yi ak sénégalais yi léegi politique bu njëkk adversité la dañu koy kas di ko réete may xaritoog PDS bi PDS bi di xaritoog PS bi alors que léegi affaire en lañ ko def samp nañ ko ba mu samp ci biir réew mi li ñuy ñaan le président Bassirou Diakhar Diomaye fay mhm. le président Macky Sall dafa indi loi amnistie mu permettre leen ñu génn ca kaso ba mu permettre tey le président Ousmane Sonko nekk premier ministre su fekkente ni dañoo remetre loolu lépp en cause nañu delloo loi bi assemblée depuis téye ko wote woon ña nga fa yaa ngi dégg mm. alors que ñi nga xam ne dañu bëgg dëgg ñu àtte leen ci dëgg premier ministre bi nga xam ne nee na moom bale na waaye nag na ko leer ni day delluwaat ca kaso ba parce que loi bi il faut ñu xam ne loi bi soit ñu accepter ko soit ñu remetre ko en cause ñu dindi ko les sénégalais yi xam fu dëgg féete il faut arrêter de manipuler les sénégalais sénégalais nag sooy wax ak moom élie mu déglu la day déglu voix intérieure bu doon ba ma nekkee ci état dañ naan bëgg nguur rek bëgg palaas rek li muy wax nii kii bëgg daraja rek tey nag nekkuma ci nguur kii xolama tàng rek dañ koo gañe gisoo ni muy waxee lu tax muy muy mer noo kenn meru fi ñenn rek ñoo mer Sénégal mooy ñi gañe te gëmuñu ni dañoo gañe mooy ñi yor nguur ba pare di opposé wu seen bopp sénégalais yi tubaarkàlla macha allah damay bëgg ñuy déglu bu nit di wax ak moom bu seen yoon nekk ci musóoram bu seen yoon nekk ci lu muy def kanamam li muy wax ban njariñ la leen amal foofu lañ leen di xaar parce que nag nax nañu ba jël réew mi amul ci benn problème parce que ku ayewal sa moome te li ñu waroon a def lépp lu ci bari def nañ ko di sant yàlla di sant sénégalais yi di sant kilifa diine yi nga xamante ni bu ñu amee jàmm ci réew mi tey ñu ko may li am solo daal el euh, mooy alhamdulilahi rabbil alamina Bassirou le président ñoo ngi lay xaar ci nga góor góorgóorlu Sénégal jëm ci kanam loolu mooy tax suñu xel dal wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf ñu ngi koy sant mu nekkoon entretien bu Sénat tu ñu leen jox daje incha allah beneen yoon ci beneen entretien salaamaaleykum.